bu ko defee ci taalibe Serigne Touba yi def ko ci bokk yi noonu loo ko def ci mboolem jullit yi la Serigne Touba waxoon ne fépp fu nga gisee ab jullit rek na ko def muy seen bokk Cheikh mun Mountakha loolu dund kon nag ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi te ànd ak wér ndax yitteem jëpp wax naa ko ko léegi ñun ñii kenn ku ci ne yaa ngi jéem a góorlu ci sellal sa digg Serigne Touba mm-hmm. loo man ci sa digg sa borom nga du ko def waaye moom nag da caa sax te boolewu ci dara. boolewul Serigne Touba dara amul benn bëgg-bëggu àdduna lenn loo xam ne man ngaa wax ne Cheikh Mouhoud Cheikh Mouhoud ndax bëgg na ko ci àdduna xamu ko du kër du du du du oto du dara léppam Serigne Touba la ko jox kilifa gu mel noonu ko yàlla def war nga saa soo xëyee di xoolaat ci moom te roy ci moom te xam ne lim day digal mooy doon la gën ci yow te Serigne Touba kat bi mu sosee yoonu murit da koo tegal ay sart wa maahu salabul ixtiyaari li xusni zannihi bila inkaari bokk na ci lépp taaliba war a def mooy bu sëriñ bi digle bul xool la gën a jub ci sam xel ndax boobaa topp gi ngay topp sëriñ bi doo xamante lu muy jëriñ ndax sëriñ bàkk bu soo waxtu wala ma di ko fàttale moo ko waxoon kon moom mii itam nag ndegam moo dox suñ digg sëriñ Tuubaa lu mu ñu digal rek dañ ko war a def wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xadaw Serigne Touba nee na balaa ak taalibe mu wér du diŋat mukk ab sëriñam donte waxuma diŋat ko diŋat ko ci bit waaye du ko diŋat ci biir te Cheikh Serigne bii kan nag ku ne xam na ne lenn loo xam ne ak matadi la wala lu ko nit war a mën a sikke yàlla def ko ci moom kon nag ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lu te ànd ak wér euh, dëppook aayam rek wa maa kaana li muminin wala muminatin isa qada allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum alxiyaratu min amri loolu suñ borom santaanoon ci suñ digg ak rasulullahi sallallahu alayhi wa moom mii nekk fii mu toog tey moo doon Serigne Touba te Serigne moo doon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon lépp lu ñuy wax rek nañu xam ne wa maa yantiqu anil hawa kon nag ñu jox Serigne Afy Bousso mu àggale kàddu yi li nga xam ne war na ko ci wax bisimilah. sëñ bi dina woowoon nag ngir doon dolli ak cantam ak yeesalam ndigal ci taxawaay ci liggéey bii mu nekk muy jumaa ji. mu muy rafetlu taxawaay nag di soññ itam nag ci ñu dolli taxawaay ni mu gën a mate nu fa sëriñ ko defee noonu yi nga xam noonu ko sëriñ bi sante di ñaan nag mbokki jullit yëpp mbokki yëpp ñu jàppaletu ci ba sëriñ bi bëggee ko noonu mu ko santaane mu santaane nag aw melokaan woo xam ni Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha Cheikh Abdoulaye dana ko leeral léegi incha allah ni nga xam ne moo lañ bëgg ñu defee ko noonu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 ngir sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa